tijani sama waay la jamiñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub Hello Riley, um, wishing you great success for your Disco Tour album coming out on the 6th of October. Um, we love your music, Britain's embracing you, uh, love Amaral. Hello Uncle Wally,

ak ànd nga expliqué ko CD yi ni ñu koy jël. ñii bu doon làkk français ñu doon ñu ànd. anglais boobu yëpp attanu ma. waaw mais ah. anglais boobu yëpp mënu ma ko wax kii de. dama lay wax rek de. what's your name my name. am forom. what you going. am going to nangam sangam foofu fa la yem. waaye wàcc fa nag dina la ko làkk loo ko ni ñu jëndee CD ak ni ñu wàccee si escalier yi loolu. let's go let's go. ay am am go to Fnac you know Fnac. Fnac. Oh, waaw Fnac. yeah. the the the king Wally Seck. waaw uh, album international la six six zero six octobre. incha allahu. you come back here you come back here in in everywhere uh, every Senegal every Africa every angle is coming here. is Senegalese ah, Africa you know Nigeria America France tout le monde is coming here you know me. the six waay six. dimanche danaa jot sa xel nekk fii. di daal di sama waay la. jàmm ña jaara busuk wala man se bi jaaro